daara ji kenn du fi nekk génn àdduna wala nga dem fenn sa ko jël ba yàlla def jëli oustaz yi nga xam ni doom la ci moom mu indi ko teg ko ci daara ji li ñu fi dégg ca suba ak léegi yëpp Ousmane oustaz macha allah man damay wax ni ñaari xale ci sa kër rek waxuma ñuy yendoog yow suba ba ngoon mais ñu ñu woon wàcc rek diggante fi ñuy añee ak di gontu yow da ngay dem ba découragé ndax coowu xale yi moom mbucaamu ji yëpp muy nekk ak ñoom suba ak ngoon boo dëgg yàlla ñun buñ suñu doom yi nekkee ci kër gi dañuy yàkkamte ñu génn dem jàngi waaw moom mi nga xam ni moom mooy nekk ak ñoom kon moom xanaa dafa war a dee comme ñun benn doom ñaari doom rek seen coow di ñu sonal moom mu dajale xale yëpp ñii di nekk ci nopp yi fii ñii di nekk fii ku ne di def benn affaire mu maîtriser ñëpp ba tey li mu def ci ñoom mu mun ko def ci ñoom ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla moom tamit waaye nitu alquran moom ni la mën mel ma sha allah mënoo def lenen lu ëpp li wala mënoo def lenen lo xamni lu bokkul ak lii dana mit décevoir oo ki la fi indi su fi su la fi indi won tay nga am no mel ak mom yaakaar naa bi du neex waaye wax dëgg yàlla da nga ñew top ci ginnaawam jël lepp lu mu bëgg yaangi ci lu mu bëggul nekkoo ci loolu dañ ci sant yalla bu baax baax baax sant tamit ñi nga xamanteni dara ci ëllëg seen doom parce que lu ñu bëgg jàngale jàngale te nit ñi amuñ si ñun confiance ba pour war indi seen doom amul njëriñ waaye nag soo fi toogee di jàngale nit ñi am confiance ci yow nangu indi seen doom ñu fiy jàng loolu sant yàlla la kon képp ko fi indi doomam lu ci yaakaar muy mu doom ji bu mokkalul alxuraan mën a mën alxuraan yàlla ko yàlla def ci barke nabi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko waxee woon sant délégué quartier imam sant alaaji Yoro Fall bu baax a baax a baax sëriñ Xaadim ko macha allah duñu def luddul jox délégué mu sanni ay cadeau su ko défé ñi joxé décoration yi ñu joxé waaw bilal yi wax dëgg yalla bu dul won ñom tamit yaakaar naa ñu bëri nañ bi dem bi parce que man moom ku ma cee xaar rek yaakaar naa mais ñoom ñëpp ñu ngi nii ay 4 du matin ñu ñëw daam Oustaz Souleymane Diop macha allah faja 4 di du matin la ñuy ñëw ñëw ci jàkka ji di noddu premier noddu salaatu nit ñi doo ko yeew doog la di fekk seen taxaway rafet na yalla na sam len bu baakha baax te doole seen sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa su dem ba jëlee hmm? waaw sha allah geureum li li li li tax affaire bi sedd xol gis nga tante bi ngeen di gis doomu dekk bi moko yore moko fi indi bu doon jambour la wala ñukoy uddi feneen mën nañ ci fay lu ëpp liñ ci fay Moustapha sisi mi doom ci Aliou si ak Kine Ndiaye moom moom moom bagaas yi moo ko fi indi jàppandal estrade beeg siis bu mel nii muy bëccëgu wal yàlla mënoon xiir ci leneen mais la yàlla jàppandil nu ci suba ba léegi moom lañuy ñuy dunde kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm si tamit di ñaanal sunuy jur di ñaanal mboolem mag ñi nga xam ne ñoo jaar ci dëkk bi taxawoo ko ba yàlla dogal ñu meññ ba tey ñu mën a taxawe lu mel nii ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala na yàlla yeesal yërmande ci ñoom yal na yàlla bu dañ mukk di di leen sotti ay leer bi jaahi na mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ndokkeel bu baax puisque tamit jullit lii rek la am jullit li koy dundal mooy diine te lii mooy liy suuxat diine ñu ngi sant bu baax di ko jaarale ci imaam lim imaam Mbaye Coro wax léegi bi ñuy taxawal daara ji dañ ko ko san dañ ko ko sos ba pare teg ci ay contrainte mu ne mu nangu ko ba pare teg ko ci ne danga mu ñu bëgg nga jàngal suñuy doom à moindre frais mu nangu ko te pourtant dafa yore kër dafa am ay aajo dafa am ay yitte mais loolu yëpp xam na ne moom boppam lay defal kon imaam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla di ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaay bi mais lépp aussi tamit day delluwaat ci oustaz oustaz mooy xaritu xale yi oustaz xale yépp ko bëgg élage euh, yi mu yorofaal daf mu wax léegi mu ne bëccëg bi rek wane na kan mooy oustaz bëccëg bi wane na kan mooy oustaz kon macha allah yal yàlla xeeb dolli oustaz yal yàlla barkeel la yal na yàlla guddal sa fan yal yàlla yokk sa taxawaay yal yàlla yokk sa xam-xam bi jaay nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, dañuy wax ne xayru kalaam maa xalla wa dalla te depuis si baat léegi ñu ngi toog li nu bëgg yëpp wala li nu yéen yëpp mën nañu ko wax wanne nag yal na yàlla mottali asalaamaaleykum wa rahmatullah Capa bi ñu ngi lay gërëm ndax sunu quartier am na télé sunu télé mooy Kappa TV waaw na ci ñëpp jàpp nag yal na yàlla def barke bi jaay na bi Muhammad sallallahu kilifa ko wax de asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ak ñi jotoon ñëw te dem ak ñi ñëwagul ñi amoon yéene ñëw te ñëwul ñu ngi sant ñépp di gërëm ñépp xam naa sax jéema jaaraat fi mbay jaar dafay xaw a jafe waaye ni mu ko waxee rek képp koo xam ne rek am nga taxawaay ci bëccëg bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di sant ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon parrain yi ak marraine yi ak ñi nga xam ne ñoom ñépp joxoon nañ leen ay lettre ak ñoo xam ne joxuñu leen ko sax ñu jàpp ci mënuñu lim waaye ñu ngi sant ñépp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla seen xale yi fi jàng yàlla na leen yàlla may ñu mën alquran te suñ ko mënee ñu jëfee ko yàlla na ko yàlla def maa ngi sant nag particulièrement oustaz xamee dañuy wax ne la shukra alal ko jaru waaye Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu ne la shukra illa alal waajib sànnikay ci ki def li mu war a def nga sant ko foofu la sant sax ndax nit xam na li mu war def toujours te def kon ki def li mu war def ba pare nga sant ko lu war la sant gërëm li tax wax dëgg yàlla def ma noppal ak nu mën def ma su ma amul woon ku mel ni moom danaa sonn danaa gën a sonn waaye tax na sonnatuma ci jumaay bi itam wax dëgg yàlla sonnatuma bu njëkk sonnoon na parce que man maa fi nekkoon rek waaye léegi sonnatuma parce que imaam yi ñu tànn ñu taxawee jumaa ji su ma ñëwee baax na su ma ñëwul baax na ñooñu itam maa ngi leen di sant di leen gërëm ak sama bokk bopp ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant Yero Fall bëgguma di jaar kenn ku nekk ci turam mbay coro ñooy nga xam ne ñooy samay collaborateur ñoom ñaar ñooy ñooy sama homme de confiance ñoom ñaar laay waxtaanal lu xew kon di sant délégué sant ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi taxaw ci suñu wet dañu jàppale ci daara ji ak jumaa ji ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di sant ñi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo mu mel ni ñoom Ahmed Darame ak Pape Darame ñooñu ak euh, Alassane Thiam ak euh, Sidi Baas ñoom ñëpp su ma limee damay juum su ma limee damay juum waaye maa ngi sant ñëpp ku mu tuddul itam yow laa yow laa njëkk tudd ndax damay profité ndax di léegi ñu julli di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nekkoon ci waañ wi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax seeni doom ñoo fi jànge waaye ñoo mën ci daayira bi ñoo mën ci jumaa ji ñoo mën ci conférence bi wax dëgg yàlla dañuy joxe seen doole ba mu jeex takk ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di ñaanal nag particulièrement suñu jarbaat walla suñu sët tabaarakallaahu du ma tudd tur parce que bëggul ko tudd turam wax dëgg yàlla xéewal yi fi jëfandikoo yépp moo indi ceeb yi indi dëwlin indi sachet ndox yi fa tabaarakallaahu boole ci nag imaam sama waa kër sax bëgguñu mu xam kooku mooy defal yàlla piir piir mooy yàlla piir piir moo tax mu def waaye du leneen kon yàlla na ko yàlla fay ci barke alquran ala kulli ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla ku ma tudd rek xam xamal ne waxtu wi moom la ñuy jëkkalante waaye su ma sañoon ma def list tudd ñëpp waaye ku ma tuddul itam ak xale yi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi suba ba léegi.

moom moo ko def kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg àgg yàlla na ko fa yàlla àggale di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp kontaan nañu yàlla na yàlla kontaan yàlla na yàlla kontaan beneen bi nag damay ñaan rek xale yi gis nga lii dafa neex te ku nekk mën na ko dama koy tàmbale ci sama bopp ñun ñëpp ay jaboot lañu te ku sa doom jàng ba ci xam ne fi muy neexee après mu bàyyi nekk fii di taxawaalu te mun na jàng demul fenn nga koy seetaan ma koy seetaan kenn ku nekk di seetaan te pourtant soo ci jàppoon yàlla xam na ne soo ñëwoon sax ne oustaz kii de xam naa ne soo ko def soo soo ci jàppul dina bàyyi jàng dama bëgg nga téel ma ko pour mu àggale njàngam oustaz dina ci téye kon dimbali leen ñu lillahi wa rasuuli bu leen yàq suñu liggéey bu leen yàq suñu liggéey jàngal nit ba am yaakaar léegi mu mu mu mu mu wàcc alquran nga gis mu bàyyi alxuraan nekk fii di taxawaalu taxawaalu fii te deful dara roqoy mi sama set doon jàng fi temps dafay jàng dafay jàng ak ñi mu àndal pourtant seen morom lañu mais gis nga ni mu ñu ñuy jàngee alquran te xam ngeen ne munu leen leen ci école bi kon ban problème ma am ba duñu jàng ban problème nit mënul jàng alquran jàng école lu yomb la xale loo ko xale gis nga doo ko bàyyi espace boo xam ne bu muy fooyee sax mais gis nga soo demoon ndar tey dañuy boole ñaar de boole école boole alquran lépp la ñuy mën kon fa tabaarakallaahu dimbali leen ñu lillaahi wa rasuuli suñu formee xale ba nga xam ne am nañ ci yaakaar bàyyi leen ko ci daara ji mu jàng su ngeen amul sa lu ngeen fay sax wax leen ñu ko ñu mu mu mu mu àggale njàngam ñu am ndam bokk ñun itam loolu dara sax bëgg nañ ndam kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf. bismillah. ñoo la décoré loolu ngir sa taxawaay ci daara ji ak alquranu karim tabarakallah ku moom bi abo ah man ci laa bokk bi waa kër imam ñoo ma ko jox defoon nañ ko daaw yàlla may ñu fekkee ko ren yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko waat ko déwén incha kontaan nañ torop torop torop macha ah, kii de suñu baay yi Thierno Mbaye nga xam ni moo nekk sëriñu imam Omar Diallo defe naa moom lañ def photom fii ngir décorer ko taalibeem bii yaakaar naa defaru leen ko teranga bu gën a rëy bii tabaarakallaahu indi ma kii ngeen di gis moom mooy góor gi Thierno Mbaye nekkoon fële ca feeraay yor fa daara jàngal imam moo nekk nii macha allah yal na teranga ba seen loxo yàlla lu ngeen mën ren yàlla ngeen mën lu ko ëpp déwén oustaz temps bi may ñu ko ñii ngeen di gis ñëpp dañoo bëgg a gërëm dañ la bëgg a gërëm waaye ñu boole ko rek def ko benn dëkk bi yëpp ñu lay àndandoo di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla jërëjëf oustaz sa taxawaay rafet na macha allah kullu amin wa antum bi xayri nañu àndandoo def fatiha salaatul fatihi yàlla may ñu ñu teewaat fi déwén kenn bañ a manqué ci barke yonte bi